assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi dal leen ak jàmm ci sunu bindu ñaareel ci taamulaat fi kitaabi taqdis al ashxaas muy ay taxawi seetlu ak i jàngat yoo xam ne dañ koy def ci téere bii di taqdisul ashxaas fil fikri suufi tey nag dañoo tiim muqaddimatu at-tabaati thaniya di laltaay bi nga xam ne moom la boroom téere bi def ci muulu ñaareel bi bi ñu koy muulaat ñu tiim paas bu njëkk bi boroom téere bi gannaaw sant yàlla subhaanahu wa taala ak julli ci yonent bi suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ko ubbee ak sant goo xam ne daf koy sant boroom bi tabaraka wa taala ci xéewal gi nga xam ne mooy xéewal gi gën a mag gu mu ko defal te mooy xéewalug lislaam waaye it dëppale ko soobu yoonu ahlu sunnati wal jamaa ñi nga xam ne ñoo yenu wooteeb mag ña di ña nga xam ne ñoo àndoon ak yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ak ña topp ca seen kaw ak ña ñëw seen gannaaw ñépp te nekk sa lañu nekkoon muy woote boo xam ne woote bu set wecc la ci ay bokkaale ak i bidaa ak lépp loo xam ne caaxaan la woote boobu nga xam ne bokk na ci li mu ràññeekoo mooy leer ak set wecc ak it yaatal ak daj kàpp waaye ku xam loolu du la yéem ndax mooy woote ki nga xam ne moo mottali yonent yi yépp te it mooy sangu doom aadama kon nag su ab woote melee noonu loola day doon loo xam ne lu xel nangu lay doon gannaaw loolu mu daldi wane ne mu ngi jébbal mbokk yi nga xam ne ay jàngkat lañ ñaareelu muul bi ci téere bi nga xam ne mooy taqdisul ashxaas fil fikr suufi xam naa ne baat bi sax nag war nañ si taxaw ngir ne ñu baree baree bari lëntal nañoo lëntal ba turu téere bi sax dañ koy lëntal di ko firee loo xam ne firiwut loola bokk na ci benn waay boo xam ne déglu naa ko te mu ngi bokk si ñi nga xam ne ñoo gën a parparloo ci wàllu téere bi ak xeex ko waaye ànd ak loolu yëpp xamut tuuru téere bi lu muy firi ci benn débat bu mu doon def ak benn mbokk mu ne taqdisul ashxaas li muy firi mooy setal jëmm yi ci xalaatu suuf yi ci xalaatu tasawuf xam nga ki nga xam ne turu téere bi ci boppam moom xamagut lu muy firi kooka du mën a xam li nekk ci biir téere bi taqdisul ashxaas fil fikri suufi daañ ñëw ca leeral gu gën a yaatu sax bu ñu àggee fa ko borom téere bi leeral waaye liñ ciy wax rek mooy nit ki borom bi tabaaraka wa taala dafa am fu mu ko wàccee wàccuwaay boo xam ne fa la ko wàccee waxtu woo yëkkatee nit ki rombale ko palaas boobu nga xam ne fala ko borom bi tabaaraka wa taala wàccee su boobaa kooka yaa ngi koy sellal yaa ngi koy jox loo xam ne du sañ-sañam mérito wu ko loolu mooy taqdisul ashxaas fil fikri suufi bi maanaa turu téere bi mooy jàngat ci biir tasawuf ay nit yoo xam ne dañu leen di yéegal dañu leen di yéegal ci palaas boo xam ne la fa nekk ay sañ-sañu borom bi tabaaraka wa taala la maanaam yàlla wàcceewul leen ca palaas booba waaye ñu bëgg leen a yéegal ci palaas boobu turu téere bi loolu lay firi borom téere bi daal di ne kon téere bi mool bu njëkk bi gannaaw bu ñu ko moolee ci diir bu gàtt si la jeex gannaaw ga it ñi nga xam ne aajowoo nañ téere bi laajte nañ ko wane na it war nañ ko muulaat ndax ñu man ko am rawatina yi nga xam ne moo yegg si ci réew mi di réewu Sénégal kon looloo tax ñu gis ne war nañ koo moolaat nee na bokk na ci ngëneeli yàlla subhaanahu wa taala bi nga xam ne def na ko mooy téere bi yàlla dugal ko ci biir xolu nit ñu baax ñi ñu yaatal ko lool te kontaan si te itam tagg ko rawatina ahlu sunnati wal jamaa te loolu nag ci mbooleem gooxu àdduna bi la nekk ci mboolem réewi lislaam yi waaye itam nag en même temps yëngal na ay tension ñi nga xam ne dañoo noonoo daawa bi nga xam ne mooy daawa salafiya di woote jëmale ci alquran ak sunna téere bi yëngal na nag ñoom itam seeni tension am na sax ñoo xam ne bi mu yëngatee seen tension ñu xool gis ne ñoom kat mënuñoo tontu téere bi tontu boo xam ne dafa tegu ci kaw xam-xam dañoo defati rek seeni manin daa di yenu ci saaga ak xaste ak togg ay tuuma ni nga xam ne noonu la ko waa bi daa aajo aada wooye waxtu woo xamee ne indi ay preuve ak i tontu ak lay yu leer waxtu woo xamee ne lottu nañ si rek dañuy daal di dellu ca seeni manin mooy daal di sos ay tuuma ak wax ju ñaaw ma ne lii bi ko boroom di wax ak léegi yàgg na lool waaye dafa mel ni waxtu wi ñu toll moo ko tax a jóg waxtu wi ñuy wax naa nañ lakk téere bi waxtu wi ñuy wax na nañ woote conférence de presse te lañ fay wax du dara lu mooy téere bi nangam téere bi nangam te ñoom ña koy wax ñëpp kat ñoom nee nañ ñu ngi askanoo ci mag ñi ak ndonol mag ñi te mag ñi nekkoon fi di jàngale xam-xam di bind ay téere ñoom mu tëleen ñu bind téere boo xam ne day tegu ci xam-xam ànd ak maandu pour tontu téere bi nga xam ne lu leer lay wax waaye borom téere bi nee na dama daa di sant yàlla subhaanahu wa taala ndax kat waa sunna seenu tagg encouragé la waaye palaas bu kowee la itam ni ki nga xamee ne waa bidaa ñoom seenu ŋàññi ak seenu sikkal loola dafay tegtale mànduk borom waaye dafay tegtale itam ak sellal goo xam ne dañ la koy sellal kon loolu mooy paas bu njëkk bi ci téere bi paasu ñaareel bi borom téere bi mu ngi ko ubbee laaj bu am solo mooy amma limaada yuktabu fi misli hadihi almawduaati fi hada alwaqti bidaat mooy waaw waxtu wi nga xam ne fi la ñu toll lan mooy jublu jubluwaay ci bind ci tem yu mel nii borom téere bi daa di ne li nga xam ne mooy saxwal islaamiya bi moo yeewute gi nga xam ne ñu ngi koy yëg si jullit ñi ak it naataange gi nga xam ne ci wàllu lislaam mu ngi am jamono jii nga xam ne monde islaam yépp a ngi koy gis te di ko seede nee na loola dafa laaj tabax ba suñ koy fondement di ko yëkkati ñu def ko ci suuf soo xam ne suuf su dëgër la suuf soo xam ne suufu pas-pas bu dëgër lay doon ak it aw yoon woo xam ne wu leer la rawatina nga xam ne fi ñu nekk léegi mooy ci commencement wu yeewute googu nga xam ne moom moo commencé am borom téere bi ne suuf suusu nga xam ne nag fa lañ ko war a sampu nee na dafa am ñaari fondement yoo xam ne daf ko ajowoo te fondement yooyu liggéey boobu du mën a dem maanaam yeewute googu du mën a dem naataange googu du mën a dem lu dul mu tegu ci ñaari fondement yooyu fondement bu njëkk bi ñaari fondement yooyu mooy at tasfiya wa tarbiya loolu moo tax mu ne rakizatul ula bi mooy tasfiyatu kutubi turaasi al islaami mimma aliqa biha min addaxiili nee na mooy ñu fexe ba nga xam ne lii nga xam ne mooy téere lislaam yi di ndonool jullit ñi ñu seet ko vérifier ko bu baax jël xalaat yi nga xam ne dafa dugg ci biir téere yooyu ñu fexe ñu setal ko te nag nee na loolu am na ci téere tafsir yi am na ci téere taarix yi am na ci siira yi am na ci magazi muy xare yi yu baree baree bari dugg na fa ci yoo xam ne ay israiliyaat la ak ay xibaar yoo xam ne yu wérut wala sax si téere fiq yi ay ay gis-gisin yoo xam ne yu beddeeku la yoo xam ne yu lëng lëng la la ko gën a dëgër mu ngi fa wala ci ay téere yi nga xam ne téere sulook la ak tazkiya li jàngale wàllu nu ñu yaree bakkan ak nu ñu yaree doomu aadama bi la nga xam ne moo sa nekk yépp ci njàngale moo xam ne njàngale mu wuuteeg njàngale nu lislaam la ñu fexe ba loola yépp ñu daal di ko génne loola kat su amut nit ki nga di ko yar wala nga di ko jàngal te li nga ko jàngal nii wérut kooka tabax ba ngay tabax day day niiru rek ab tabax boo xam ne boroom daf koy tabax te fekk ne mu ngi ko teg ci suuf soo xam ne suuf su dëgërut la xam nga ne tabax booba du mën a yàgg waaye itam nag dëgër sax du ko def kon loolu mooy rakiza al ula bi rakizatu thaniya di fondement bi nga xam ne mooy bu ñaareel bi mooy tarbiyatu jiili saxwati ala taxsil al ilmi alsharciyi al muassali al mabniyi ala turath al musaffa wa sunnati al mutahara gannaaw boo xamee ne segg nañ te seggaat yi nga xam ne ay xalaat la yoo xam ne ñëw na ci biir téere yi te mu doon xalaat yoo xam ne dafa wuutee ak njàngilinu lislaam bu wér ñu segg ko seggaat ko ba noppi ñu fexe nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci saxwa boobu di yeewute googu nga xam ne moo commencé am ñu fexe ba yar leen ci jàng xam-xamu sharia waaye xam-xam boo xam ne dañu ko fondement te tabax ko ci ndono loo xam ne dafa set wecci ñu segg ko te mooy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne nag ba tey ñu ngi si paasu ñaareel bi nee na ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xamu sunna yi ña jiitu ak ñi mujj ñëpp wàllu googu bay nañ ci waar woo xam ne wu am solo la rawatina ci xeex xalaat yi nga xam ne dafa dugg ci lislaam te du xalaatinu lislaam du njàngaleem ñu daal di taalif ci loolu ay téere yoo xam ne yu ama ama am solo la ni ki nga xamee ne it ci waxtu wu teel ñoom boroom xam-xam yooyu taxaw nañ jàkkaarloo ak waa bidaa ña nga xam ne si ñoom dañoo jàdd aw yoon ñu taxaw jàkkaarloo ñoom daal di bind ay tontu ci kuréel yi nga xam ne dafa sosu ci lislaam waaye fekk ne dafa am ay xalaat yoo xam ne dugg na leen yu uteeg njàngaleem lislaam mu wér lu mel ni jahmiya wala mu'tazila wala rafida boroom xam-xam yooya daa di leeralal xeet wi réer gi nga xam ne kuréel yii ñu ngi ci ngir wattandekuloo xeet wi ñu tàbbi ci lëgg mi nga xam ne moom mooy lëggum bidaa waaye it ñu def ko ngir laayee biir ki nga xam ne dafa jàdd yoon wi ngir mu mën a delsiwaat ci kaw yoon wi nga xam ne moom mooy yoonu njub mooy yoonu dëgg loola nag tam dafa continuer yemut foofa rek dafa continuer woote boobu di jàll di jàll ba ci jamono ji nga xam ne borom téere bi mu ngi bind téere bi nga xam ne ay masaayix yu yu yu mag a mag a mag nekkoon nañ si jamono jooja di cheikh Abdul Aziz Ibn Baz ak cheikh al Albani ak cheikh Ibn Uthaymin ak ña tombe woon ak ñoom sa jamono jooja ñooña nga xam ne bay nañ waar ci wàll googu waar woo xam ne wu am solo la te yaatu ci segg ndono lislaam mi nga xam ne nii dañ ko toxal ak i ay xalaat ak it yartam ndaw ñi ci segg boobu nga xam ne moom lañ segg lislaam moom lañ segg itam xalaat yi nga xam ne dafa ñëw wàll ci ci biir lislaam ñooña ñëpp nag yàlla na borom bi tabaaraka wa taala yërëm leen te itam fay leen fay goo xam ne gu yaatu la ak képp koo xam ne ñëw na seen gannaaw te def li mel ni li nga xam ne dañ koy def dañ ko def ñoom te itam nag nee na farlu yooyu ak góorgóorlu yooyu loola dina continuer incha allahu tabaraka wa taala féeg rek ñu ngi am ci biir lislaam ndono waaye féeg tam xalaat yi mel nii am na ñu koy continuer di xalaat loola du dagg te itam du taxaw léegi nag ñu ngi si paasu ñetteel bi tomb bu am solong fi mooy kon téere bi ndegam am na ci ndono lislaam li yu ñu war a segg téere bi moom ci fan la féetee ci yooyu nga xam ne dafa laaj ñu segg ko borom téere bi ne amma kitaabuna hada fa yaati fi itaari rakizati l ula nee na suñu téere bi de kon moom dafay ñëw ci fondement bu njëkk bi looloo tax dafay jottaleku ci biir xalaatu tasawuf li nga xam ne gan la fa nga xam ne dafa wuutee ak njàngale moo xam ne njàngaleem lislaam mu wér la xalaat yooya moo tax dina leer ne téere bi xeex tasawuf taxu koo jóg téere bi li ko tax a jóg mooy ci biir tasawuf xalaat ya nga xam ne xalaat ya nga xam ne dafa uutee ak njàngaleem lislaam mu wér te loolu bari na loolu bari na même ñoom sufiyanke yi ci seen bopp ñu si bari si ñoom bind nañ ay téere yoo xam ne wala sax ñu critiqué ay jëmm yoo xam ne wala doxin woo xam ne dafa wuutee ak li nga xam ne moom mooy njàngaleem lislaam mu wér kon loolu moom bari na lool ci biir sax sufiyankee ci seeni bopp looloo tax mu ne kon téere bi ci cadre boobu la ñëw pour gaar ak itam def ay analyse yoo xam ne dafay jàngat xalaat yooyu la sa ajo tontu ñu tontu ko rawatina su fekkee ne lu uteeg texte yi nga xam ne mooy texte alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii nag beneen tomb bu am solo mu ngi fi cheikh bi nee na walladina lam yafhamu hada almanhaj manhaj altasfiyati waltarbiya ولم يرتقوا إلى هذا المستوى حسبوا أن الكلام الذي يتناول التراث بالتصفية يستهدف المؤلفين وأصحاب المقالات ويتناولهم بالتكفير نينا نيغا خم نك ني ميثود بي اك دوخين وي دي دوخينو سيغ ليغا خم ني موي ندونول الاسلام با نيغا خم ني دنج لين ورا يار ñu yar leen ci xam-xam boo xam ne bu wér la ak méthode boo xam ne bu wér la te boo seetloo xoolal ca gannaaw ca gannaaw cheikh bi wane woon na ne segg boobu moom nee na turaasul islaam yi yëpp lañ ko war a def nekkul ne tasawuf rek lañ ko war a def loolu lu jar a bàyyi xel la dañu ba dañoo foo ne moom dafa ne li ñu war a segg ci turaasul islaam yi mooy al fikru daxil ala tasawuf xalaat bi nga xam ne dugg na ci tasawuf am na xalaat yi nga xam ne dafa dugg ci tasawuf te mu uuteeg njàngaleem lislaam mu wér waaye ëpp na loolu mu ngi ci téere fiq yi mu ngi si yu taarix yi mu ngi ci yu siire yi yépp mu ngi ci te suñ bañu doon guddal dañ doon cité yenn mbir yoo xam ne mu ngi ci téere yooyu waaye dañoo bañ a guddal nee na fii ñi nga xam ne kon méthode bii ñoom xamuñu ko di méthode segg ak yar te it seen tolluwaay yeggut ci ñoom dañuy jàpp ne kii kat kii nga xam ne dafay jóg ne dafay segg ndono lii nga xam ne mooy ndono lislaam danaan kuy kat ñi taalif loola ñoom la jublu wala ñi wax wax ji ñoom lay attaqué ñoom lay yéeféerloo comme ni ñu koy déggee tey si ay ndaw yoo xam ne ña sa ëpp la ñuy wax xamuñu si dara nga xam ne dañ naan téere bi day wax ci awliyaa yi day ŋàññi ay waliyu wala wax yu kenn xamut déedéet téere bi loolu taxu koo jóg moo tax nee na ñiy wax loolu ñoom xamuñ ne dafa bokk ci xawaayid yi nga xam ne salaf tër nañ ko mag ñi tër nañ ko mooy teqale diggante wax ak ka ko wax diggante jëf ak ka ko jëf loolu lu am solo la nee na faqad yakunu alfilu aw alqawlu kufran wala yalzamu min dalika takfiru alqaili aw alfail nee na léeg-léeg wax ji mën naa nekk weddi yàlla léeg-léeg jëf ji mën naa nekk weddi yàlla te ka ko wax loolu du tax mu weddi yàlla ka ko jëfit loolu du tax mu weddi yàlla amaana sax wax ji si boppam kiñ ko askanee ne moo ko wax mun na am génn na ca balaa mooy faatu tuub na mu ne nag looloo tax ngir sàmm qaayida bu am solo bii régal bu am solo bii looloo tax doo fekk ci téere bi booyal baatu weddi yàlla subhaanahu wa taala ci kenn nit ku ñu ràññee allahu akbar lii moom taxaddi la mu ne lu dul koo xam ne waa jamanoom ñoo dëppoo ne diw sàngam yéeféer la gannaaw boo xamee ne it ñu mi taxawal nañ lay ca moom ñu gis ne kii kat ku weddi yàlla lañ ko mën a jàppee léegi mu ne ànd ak nag ne lim toxal ci wax yoo xam ne la ca feeñ mooy weddi yàlla wala bokkaale bari na waaye amul fenn fu mu cité ne diw sàngam kaafir la diw sàngam dafa weddi borom bi tabaaraka wa taala kon nag ñi nga xam ne dañ leen di dégg guddi ak bëccëg ñu naan dafa saaga ñi naan dafa yé dafa yéeféerloo mag ñi waaw nañ nañ wax fu mu koy fu mu yéeféerloo nit nañ ko wax amul benn place boo xam ne cité nañ fa nit ci biir téere bi ne diw sàngam yéeféer la lu mooy kooka waa jamonoom yëm doon dundat ñoom ñoo dajee ñoom ñëpp taxawal aw lay ci kawam mu daadi bañ ñu doog a àtte ne moom yéeféer la te kon su boobaa loola ku lislaam yéeféeral nag kooka moom nga yéeféerloo ko loolu aayut koo xam ne boroom xam-xami jamonoom ñoo dajee waxtaan ak moom jéem a sàkk mu dellu gannaaw mu bañ na du dellu gannaaw ci ay mbir yu mu fas yoo xam ne dafa wuuteeg lislaam su boobaa kooka wax ne ab yéeféer la ngir sukkandiku ca waxi boroom xam-xam ya nga xam ne ñoom ñoo dund ak moom te yéeféerloo ko su boobaa loola dara nekku ci kon nag ñi naan saaga yaa ngi si téere bi mënuñoo wane saaga ñu naan dañoo yéeféerloo nit ci téere bi mënuñoo wane fenn fu ñu yéeféerloo nit rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñooy magi réew mii amut fenn fenn foo xam ne cité nañ fa menn mag jëmale ci moom wax joo xam ne ak yéeféer la wala saaga la loolu amul ci téere bi kon nag su ko defee incha allah am na ay qawaid yoo xam ne cheikh bi teg na ko gannaaw loolu di ay doxin woo xam ne moom lay doxee ci biir téere bi doxin yooyu am na solo bu baax a baax pour ñu xam ko incha allahu tabaraka wa taala mooy doon suñu bind bi ñëw wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته